xam ne doon nañu jéema dem ca bitim réew toll nañ ci ñeen fukki nit fanweer yi ak ñett yëpp ay sénégalais lañu waaye nag ba léegi amuñu benn information si ñoom maanaam xamuñu yegg nañu xamuñu dañoo réer ci biir ndox mi yéene kaay gi nee na ci déndu Afrique bi ñu ko xoolee maanaam ay doomu réewum Sénégal ñoo ëpp lu ñuy jël gaal gi di jaar ci ndox mi di jéem a dem ca bitim réew Assane Samb xëy di ñu xibaar naan ñu moo ne day ñi nekk ci réew mi dañoo jàpp ne ngir ñu tekki il faut ñu dem bitim réew te mbir mi demeewul noonu bëri na ñoo xam ne ñoo ngi bitim réew duñu réussir ay jafe-jafe yi neen lañ fay dund yéene kaay gi Moussa wax ci lu jëm ci wàllum élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal yéene kaay gi nee na li nga xam ne na mooy déposé jëm ci wàllum liste yi ba léegi ni amul kenn koo xamante ni def na ko embouteillage bu mag a mag a mag dana ñu ko daal di créé ci fi nga xam ne fa la ñuy déposé liste yi tey jii yéene kaay gi di libération xëy dañu xibaar naa ñu lu jëm ci wàllum dépôt des listes ci élection locale yi maanaam dernier virage bi maanaam egg nañu sa ci pàndaw ga wërngal ba na ci diwaanu Ndakaaru maanaam xeex bi munta ñàkk diggante Abdoulaye Diouf Sarr ak Barthélémy Dias ak Doudou Wade ak Bougane Gueye Dany ak Mame Mbaye Niang yéen kaay gi du l'Observateur xëy duñu xibaar naan ñu Abdoulaye Diouf Sarr avenir politique am jamono ji moo nekk en jeu yéen kaay gi di Sud Quotidien ak Rewmi Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Yewwi Askan Wi ci diwaaru Ndakaaru Barthélémy Dias la ñu samp yéen kaay gi nee na Wallu Sénégal Doudou Wade la ñu teg ci Ndakaaru Soham Wardini moom nag dañu ko écarté waaye nag ma ngi berli su boppam l'Observateur nee na Soham Wardini ba léegi ma ngi li nga xam ne mooy bilan may yéen kaay na ndaw ñi nga xam ñoo bokk ci COJER nekk ca diwaanu Parcelles Assainies ñoom nag mer nañu ba maara de tali ci Moussa Sy mi nga xam ne moom la Benno Bokk Yaakaar tànn ndaw ñi ñoom bi ñuy janoo ak taskatu xabaar yi nee nañu Moussa Sy amul bilan te nag danañu boycotté li nga xam ne mooy liste Benno kay gi du source xëy duñu xibaar naan ñu passé fa Ousmane Sonko lu bare bare bari kay gi nee na loolu nekk maanaam mooy séddale gaynde dëggantaan la témoin na Khalifa Ababacar Sall gaz la tànn ci ndakaaru ba pare di neexal ki nga xam ne mooy Soham Wardini yéen a kaay gi de la Quotidien nee na Khalifa Sall ak Ousmane Sonko maanaam commune yu baax yépp ak département yi ñoom ñaar ñoo ko séddoo maanaam yeewi askan wi commune yi yépp daal mën na ñoo wax ne Khalifa Sall ak Ousmane Sonko ñoo ko séddoo ci seen biir daal di bàyyi nag ñeneen ñi nga xam ne ñoo ngi ci biir yeewi askan wi yéen a kaay gi di évidence xëy dañu xibaar naan ñu ca diwaanu ñoo xam ne ànduñu ci Modou Ndiaye Rahma mi nga xam ne moom la Benno Bokk Yaakaar def tedd liste ñenn ñi nag nee nañu ko ndax ab yéen a kaay gi di réew mi ko di jeex xëy dañu xibaar naan ñu cortège Ousmane Sonko bi ak ñi nga xam ne ñoo si ñàkk seen bakkan ni ki démb jébbal nañu leen seen borom waaye nag ñi nga xam ne ñuy waa Pastef démb nag am nañu lu leen naqari loola Walf Fadjri yéen a kaay xëy dañu xibaar naan nag vaccin yi nga xamante andi nañ ko ci réewum ngir nag askan wi ñàkk ko am na ñoo xam ne dañoo lànk kandaare bañ a jël ñàkk yi moo taxi nag lu jege yoo xam ne dafa périmé dat ba daa jeex dañu na li nga xam ne mooy pass sanitaire bi yéen a kaay gi di Les Échos xëy dañu xibaar naan ñu acte contre nature ci corniche bu ouest ci Ndakaaru ñaari ponkal yoo xam ne ay góor la ñu ku ba seet wecce maanaam doon sëy si seen biir yéen a kaay gi di Stades wax ci Ligue des Champions Cristiano Ronaldo nag ni ki moo sauvé ñi nga xam ne ñooy waa Manchester United yéen a kaay gi nee na Liverpool moom ak Ajax ñoo nga jëm ca qualification ya yéen a kaay gi na Bayern ak ñoom dem nañ ca huitième de finale ya yéen a kaay gi di sunu na combat bi ne moo war a dox